DG le quotidien yëgle kaay daal di dellu soir ci coppite gi nga xam ne rek am na ci direction yi ne Pastef jamono ji kay ma ngay teg ay ndawam laas yëgle dellu soir ci direction yi ñu soppi mu di ARTP ca SAR ca TDS ca FONSIS Dakar dem dikk ak yeneen ak yeneen yi fa yëgle dellu soir ci président Diomaye Faye mi nga xam ne rek ma ngay waddal ay tet muy ca FONSIS ca ARTP ca kuddu ak ca Dakar dem dikk ba ci chemin de fer bu Sénégal ñoom Maguette Sène Abdoulaye Diop ak Ousmane Sylla ay responsable yu bëri yoo xam ne rek dañoo bokkoon Pastef nekk itam ay jegeñaale président de la république nag jamono ji nag ñoo fas yéene jiite yooyee direction ngir doxal ca nag yéenekaay bi ne ñuy xaar fileeg booba nag yeneen nomination yoo xam ne rek dañ koy amal ci bopp lekk ak ca bopp Lonase tribune yëglekaay dellu soir ci opération de démaquillage bi nga xam ne rek jomaay def na ko yéenekaay bi ne ma ngay écarté nag kii di Diouf Sarr Abdou Karim Sall Maguette Sène ak Ousmane Sylla lu jëm ci wàllu woowee sax ba tey nag moom président de la république jomaay fay nag càkkutey fam jamono ji nag mooy ñu daal di audité kër gii di dem dikk càmbar ci nu mu gën a lu jëm ci yëngu-yëngu yi nga xam ne rek ngi ko doon amal ci parc de bus yi rawatina nag ci wàllu ressources humaines les éco yëglekaay ne système de transport bi kay nag jomaay fay jamono ji nag ma ngay ciblé Dakar dem dikk ak BRT bi bi moom njiit réew mi ma ngay sàkku nag ñu daal di amal ay audit ci nu mu gën a gaawee yi nga xam ne rek ñu ngi ko doon amal ci parc de bus yi rawatina nag ci wàllu ressources humaines yi nga xam ne rek moom moo jëm ci Dakar dem dikk li mu bëgg itam bokk na ci ay leeraange nag ci effectivité bu BRT bi naka noonu aussi ci modalité yi nga xam ne rek moo jëm ci ni ñu ko war a doxalee yéenekaay boobee di Les Échos di ñu xamal ba tey ne nag ca conseil des ministres kii di Ousmane Sonko ma nga fay jël ay dogal nag ngir maintenir lu jëm ci cent mille logements yi waaye xam le ne ni nag faaw ñu daal di koy accompagner ak ay mesures yu am solo moom premier ministre nag ni balaa yàgg dara daa ñu wàññi lu jëm ci njëgu dund gi lu jëm ci système de rémunération yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal ci fonction publique bi nag daañu ko xoolaat ngir mën a yemale ñëpp ay réforme yoo xam ne itam mu ngi koy annoncé jëm ci wàllu fiscalité bi nag réew mi quotidien dellu soit ci wàllum dund gu cher gi yéenekaay bi ne Ousmane Sonko mii ko de production agricole atum 2024 programme yu 100 000 logements Ousmane Sonko ma ngay fësal ay priorité ma 24 heures yéenekaay ne Ousmane Sonko jamono ji nag ma ngay soobu ci action yi nga xam ne rek moo gën a doon priorité bokk na ci mesures yi nga xam ne rek war na koo jël ngir wàññi dund gu cher cher gi lu jëm ci wàllu subvention yi nga xam ne rek moo jëm ci produit de première nécessité yi waaye tamit lu jëm ci wàllu produit pétrolier bi àddu jëmale ci leneen mu di yëglekaay bi di Sud Quotidien moom nag dellu siwaat na ci coowal suuf gi nga xam ne rek moom la tudd jamono ji nag ca diwaan bu Thiès ba ci diwaan bu Mbour yéenekaay bi ne atum 2020 nag waa OFNAC defoon nañu ab alerte yëglu ci ni ñuy caxat-caxatee suuf sa nag boobaak léegi am dañoo meloon ne ku sax noppi tëx rek bëgguñu ñu a dégg dara ci yëglu boobee waa OFNAC doon amal nag loole moo jur tey ji nag jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci wàllu suuf si mu di ca région bu Ndakaaru jàpp diwaanu Thiès ndax lépp loo xam ne rek ay gëstu yu ci OFNAC amaloon nag dañoo jël dossier yi daal di koy dugal ci tural yi enquête yëglikaay ne dakkal gi ñu dakkal nag liggéey yi ñu doon amal ci littoral bi nag boo moytuwulee dina jur ay xeexoo yu métte métti ci wàllu yoon maître Doudou Ndoye xamle ci biir bi ne président Diomaye Faye nag amul benn sañ ngir dakkal littoral bi Alioune Tine di xamle moom itam nag ne mbir yi lu ñëpp bokk la kenn waru koo def mbiru privé professeur Samba Traoré nekk ca UGB ne njiitu réew mi ci boppam nag dafa jël ay mesures yoo xam ne rek la mu ca jublu rek bokk na ci gëstu mbir yi ngir mu gën a leer ci boppam te loolee nag am na ci sañ-sañ bu baax a baax la tribune yëglekaay dellu soit ci pagaay bi ñu nemmeeku nag ci yorinu suuf fii ci réew Sénégal yéenekaay bi ne lu ñu mel nag responsabilité bu mag a mag la ca ministère des finances daal di amee ndax moom rek mooy patron direct bu directeur yi nga xam ne rek ñoo yore wàllu budget ak impôt et domaine kon nag lépp lu jëm ci wàllu pàccoo bi ñuy tudd ci wàllu suuf si nag loxoom laale na ca le quotidien yëglekaay àddu jëmale nag ci politique publique bi nga xam ne rek moom Bassirou Diomaye Faye mi ngi koy amal jamono ji nag yéenekaay bi ne président Diomaye mi ngi topp ci tànku Macky ndax ma ngay wéyal nag programme bi nga xam ne rek moom la séq ak waa FMI yéenekaay bi ne état bi nag jamono ji ma ngay wéyal projet bu cent mille logements ak bu bourse de sécurité familiale bi nga xam ne rek président Sall moo ko fi taxawaloon Le Soleil yëglekaay xëy tey ji àddu ci wàllu dem beeg dikk bi yéenekaay bi di xam ne ne état bu Sénégal mi ngi waajal ay états généraux nag jëmale ko ci wàllu wi fileeg weeru juillet ci conseil de ministres bi nag ci la njiitu réew mi xamle nag ne faaw ñu toog rek waxtaan bu ko defee nag ñu daal di wut ay saafara jëmale ko ci secteur bi jëm ci wàllu dem beeg dikk bi gouvernement bu Sénégal ma ngay sàkku jamono ji nag ñu daal di càmbar lu jëm ci doxalinu société bii di Dakar dem dikk waaye tamit def ab taxaw seetlu jëm ci lancement bi nga xam ne rek moom la ñu war a lancer lii di BRT bi jeexale yëglekaay yi ak lu jëm ci wàllu trafic de drogue foofee ci Liberté 6 bi di réew mi quotidien mag ñuy xamal ne benn élève terminal ak benn étudiant yoon teg na leen loxo foofee ca liberté 6 extension naka lañ leen fekk ñu yor ñaar fukki cornet ak juróom-ñeent yoo xam ne rek drogue boobee ñu dippee xachis ak fanweer ci ay cornet yoo xam ne rek cannabis la ak i appareil ki ciseaux yoo xam ne rek moom lañ leen di daggee ak i emballage ñoom ñaar ñooñee nag ñu ngi leen teg loxo ginnaaw ab commande boo xam ne rek dañu koo jébbal tailleur bi nga xam ne rek moo di am di Moustapha mbokk yi léegi noonu fas yéeglekaay yi jàmm ak jàmm société nationale d'électricité bu Sénégal